الحمد لله الحمد لله والصلاة- والصلاة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi santaat suñu borom subhanahu wa taala di dajewaat ci suñu téere bi nga xam ne moom mooy Risaala bu Ibnu Abi Zayd al-Qayrawani ñu tolloon ci la nga xamee ne nii mooy comme ñu ngi tolloon ci bunt bi nga xam ne day wax ci shufa ak it la nga xamante ni moom mooy aju ci lu demee noonu ñu jëloon ko ci suñu bind bi passé jëloon nañu la nga xamee ne moom aju ci ak may nan la ko lislaam gisee ak lan mooy wuuteem ak sarax yi ak li nga xam ne dañ koy tuddee al waqf te mooy alal joo xam ne dañ koy jagleel kenn du ko doon jàngoon nañ li ñu tuddee ak tayle mooy al rëhn dañ mu doon a jël mooy li ñuy tuddee al aariya te mooy li nga xam ne mooy ableya tey jii ñu war a jël benn ca bunt yooyu mu tuddoon mooy li nga xam ne mooy dénkaane su ko defee yow mi gis bunt boobee muy fanweeri bunt bi ak juróom benn boo xoolee ci bind yi ca mujj day wax wal muwaddau in qaala raddat raddatul wadia loolu mi ngi nekk ci page quatre-vingt-onze bu dee muul ba xonq bi amul daal yi lii bii fa jàpp ma ko nattu ma ko ala kulli xaal cinq cent soixante-deux kon ñu ngi ci cinq cent soixante-deux ci waaw ci deuxième ligne bi ci numéro bari que mooy rek daanaka ñu tolloog page ca bindu trente-six bi nga xam ne mooy shifa wal hibba wa sadaqa mi ngi noonu tey jii ñu war a jàng alwadi'a te mooy dénkaay su dee gis nañ ko ñu jàng mu ni wal muwaddahu in qaala waa dañu dénkoon di bu dee daa wax ni radattul wadi'a ilayka man kat delloo woon naa la lan ma dénkoon sudiqa dañ koy dëggal ca loolu illa an yakuna qabalaha bi ishaad xanaa lu dul ni daa nekkoon ba mu koy jël man koy jël ci ak seede wa in qaala zahabat su dee lan ma dénkoon kat dem na ay réer na wa huwa musaddaqun bi kulli xaal moom dañ koy nangul loolu dëggal ci loolu ci xaal bu mën a doon wal aariyatu laa yusaddaqu fi halaakiha fi ma yuxaabu alayhi waloonte ne nag able la kenn du dëggal waaja ca la nga xamee ni nii dafay arku ca lañuy mën a denc kenn du ko ca nangul mbokk bunt bi mooy buntu dénkaani te mooy al amaana waa ji dafa am alal joo xam ne daañu dénk la ko walla mbooloo ñoo am alal boo xam ne dañu la koo dénk bokk nañu xam ni denc dénkaane boobu ci tuyaaba yi gën a rëy la bokk suñ borom yàlla wax na ko ci téere bi ci aaya yu bari ba demee suratul muminuun borom bi nee na walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'uun ba demee ci suratul maarij walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'uun ñoom ñépp mi ngi leen dig aljanna kon lu jaamu yàlla la lu dénk la dara nga sàmm ko ba delloo ko ñu ko dénkoon noonu mu nekk jaamu yàlla yi noonu la nekk danger noonu la nekk danger ci doomu aadama bi di wor la nga xam ne mooy ak dénkaat yi di mandarga yi naa féq la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim mandarga yi naa féq ya boole na ca wa izaa utumina xaana heure buñ ko wóoloo ci dara loolee dafay doon da koy wor looloo tax ba jullit dee ragal dénkaay suñ borom bi ngi jox misaal ci li nga xam ne mooy amaan te mooy tënk jaamu ko bañ koo bokkaale dara sàmm ay ndigalam inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal ibadi fa abayna an yaxminnaha mu ne dénk na amaana boobu asamaan yi suuf ak montagne yi dañ ñi ñoom duñ ko gàtt doomu aadama ba ko gàtt nag innahu kaana zaluman jahula li ëpp ci doomu aadama yi ay bankat lañ ay réer la su nekkee bokk rawatina yow ndawal bi ni dawal sa tënkale kattan garde ay kees li ci nekk ci ay nattu dafa bëri lool bari na ñu ñuy tëj ci kaso ñàkk xam na ñuy gérer seen kees moo tax ñu tëdd ko waaye dundee dañoo lekk gis la loolee ñu bàyyi ci xel bu baax kon heure boo xam ne nii waa ji dañ koo dénk léegi nag kaka dénkoon ñëw na ko delloo ma la ma la dénkoon mu ne ah lan nga dénkoon delloo naa la suñu demee ci àttekat bi dañuy wax jox waa ji dëkk maadaama nee na delloo na la ko moom la ñu jox dëgg loo dul ne ba nga xamee ne waa ji da ko doon dénkaane dañoo séede woon dénkaane su boobaa moom fi yëpp séedewul delloo ka dénkaane bi dañuy day sax ca moom ñu ngi noonu subhaanahu sunu borom subhaanahu wa taala ci ni ñu koy waxee وإذا أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ورب سبحانه وتعالى نينا إذا خم يلين كونين إيوا يكرك الله تبنشا ونيدرا ورب إذن ولا تكتم الشهادة كما يوم إذا خم يلين دا سيدل ولا أجدين كان ولا يا سيد أجلو suñu borom mu ne bul nëbb seede googi wa man yaktumha fa innahu aasimun qalbu képp koo xam ne def na ko ku mel noonu day xolam ba xol bu def ko ci bàkkaar loolu mbokk mi ngi noonu am naa waa ji bu jëriñ koo dégg lañ ko dégg waa jëkk a dégg kon ñëw waaw ana sama xarma waaw ana sama chaîne or ba ci jigéen ña mu naa ay yéwén di dencoon naa ko waaye sàcc na wattu woon naa ko waaye réer su boobaa moom àttekat bi dañuy jàpp ne moom wax ne dëgg ndax yow da ngaa jàppoon daa noonu moo tax nga nekk nga dégg ko kon dañuy jàpp ne moom kat moom wax ne dëgg loolu dañuy nangu ci dugub xanaa lu dul ñu daal di am preuve ci ne li mu wax nekkul loo xam ne nii am na mu ne loolu nag dafa safaanoo ak able comme nañ ko jàngee woon dimanche passé wala aariyatu laa yusaddaqu fi hadafiha waa di ñëw ab matériel u jàmb dem ba yàgg mu ñu laa lan ma abaloon kat sàcc nañ ko dañ naan ko fayal lan ma abaloon réer na dañ naan ko fayal waaye bu dee waa ji moo jóge fu ne moom ne la dencal lii loolee nga def te sa kéemtalaay ci kàttan mu réer wala ñu sàcc ko islam du la toppe loolu lu dul ñu daal di am ay preuve ca loolee loolu kon bokk lay wax ci wàllu googu donte ne ni it am na ñoo xam ne ragaluñu yàlla am na soxna su su ma xam bu baax mu jël benn dëkkandoo di ko denc di ko dénk alalam pour paasuma di dajale di dajale ba am paasuma ñëw biñ commencé inscription mu ñëw ci soxna si na ko jox ma ma def inscrire yi kooku na ko mosoo ma dénk dara mosoo ma dénk dara affaire boobu maa ngi fàttaliku am na grand sëriñ bi fi nekkoon ndax ci yëppal la koy woon grand sëriñ ba fa nekkoon woo na leen ñu jéem a seet ñu demee ba xam ne soxna si li mu wax ne dégg na ko àll dëgg la mu ne ko bàyyi man danaa la yóbbu màkk mu ne ko soxluwuma àll kenn moom dama fay mu mu dafay nañ bàyyi ba yàlla allah dara bis ñu rek la ko ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf ñu ngi noonu ala ko di xaar kon am na ñoo xam ni seen ñeme yàlla ñeme yegg na ci yoral nit ki alal wóor na leen yoral ko alal ba pare ñuy weddi ko waaye nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala bala chaque ni lépp moom moo koy sëy loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñu jël ba jël benn mu ne wa man taadda ala wadiatin daminaha koo xam ne daa jéggi dayoo te dénkaane bañ ko dénkoon dana ko garantir ay fay ko وإن كانت دنانير فردها في سرتها سلطني أي على الله أي جي أي بيس أي دينار مجرم كباباري كيلو والكتب مصب ولا كيس ثم هلكت غناب مداري ألقو فقد اختلف في تدبيره ووتنا نجنا ننكو غارانتي مرنين ومن اتجر بوديعة كو خمي دفا كوميرس تدنكو دينكو fa zalika makruh loolu day lu ñu sit la wa ribhu lahu doonte ne ni intérêt ba dana ko ñeel in kaanat aynan su dee ne lam doon liggéeyee xaalis la ci boppam ay xaalis la ñu ngi noonu wa in baa al wadi'a bu dee ne nag daa jaay dañ ko dénkoon wa hiya ardun te fekk marchandise la fa rabbuha muxayyarun fi saman borom marchandise ma dañuy tànnloo ndax mu jël jëf gi mu ko jaay awil qiimati yowma taaddi wala mu jël la nga xam ne mooy luy méngoo loolu ci xayma gis ba mu jéggee dayoo ca la nga xam ni moom mooy ca lan ko leen ko mbokk kon day wax ni waa yi nga xam ne dañ koo dénk lañ ko dénkoon mu jéggi ca dayoo masalan kii nga xam ne day dem ñu ngi la oto masalan nga taal oto bi dërërër dërërër dërërër ba yàq oto la aw fas la nga dawal ko ba mi ngi noonu machine bu mu mën a doon nga jëfandikoo ko ba yàqu su dee dañ caa jéggi dayo dañ naan la da ngay fay waa ji ngay fay waa ji mu indi benn cas waa ji da koo jël benn mbuusam wala benn coffram dégg ko alal waa ji ubbi kees la jël alal jël dem def ci la ko ca neex delloo waat si alal bi fan alal di yàqu sàcc na dàq na réer na ilaatin loolee am na ñu ni maadaama delloo woon na ko du fay waaye am na ñu ne comme dafa jëloon alali jàmbur la koy fay te ni nii mi ngi noonu beneen cas bi mujj mooy ki ñu dénk alal alal ji nekk ay kii ay ay ay xaalis la bu doon jamono yu njëkk di wax ay dinaar ak i dirham mais léegi dañ naan ay kii la CFA la euro la dollar lu mu mën a doon moom la la wàññi de bi mu la ko dénkee nga def commerce ci ne loolu day lu sib lu sib la ndax la ñu cëy ragal ci sib bi waa ji ñëw nga la sama nga mën a dénkoon ngay naka naka looloo tax lu sib ma ne waaye nag bu ko waa ji defee wala am ci bénéfice bénéfice boobee dana ko dagal mu jël ñu ngi noonu ñoo ngi ci borom bitig bi dégg ko cent mille franc bi nga defee mu jënd ci saaku ceebam ñëw jaay am bénéfice heure ba nga ñëw mu delloo la sa cent mille bénéfice boobu dana dagan ci moom su dee ni xaalis liquide lañ ko dénkoon mu delloo xaalis liquide bu mel noonu yi nga noonu donte ni comme niñ ko waxee def ñu ngi si loolu it day wane ne dénkaan yi waa ji dénkaan yi alal ça ne veut pas dire que ni lu ci juddoo rek moo ko moom ñu bëri da ngay gis intérêt bancaire dañuy jàpp dagan na ci ñoom ba tey rek wala démb rek maa ngi jot benn laaj benn mbokk ci Europe bi laaj bu demee noonu ndax jàpp na ne banque bii day liggéey ci xaalis bi kon lam ciy jëlee kaza wa kaza déedéet mbokk bi banque bi da koo dem dénk ko dénkaane googu nga ko dénk da ngay gis ne moom ci boppam bu defee ay transaction bu ca pertoo nit yow da ngay ñëw ni jox leen ma sama un million kon lam ca gan yi loolu mbiru banque ba looloo tax ba mbokk intérêt bancaire jullit du ko lekk jullit du ko lekk masala bi kay borom xam-xam ne ixtilaaf ba ca am mooy ndax am nga droit jël ko am déet damaa dencoon ca banque bi un million def na ko six mois wala un an ala kulli xaal ñëw naa di jëlaat ñu ne ma am nga fi intérêt vingt cinq mille masala ndax man am naa droit jël sama un million ak vingt cinq mille yow am na borom xam-xam yoo xam ne dañu amoo ci droit un million nga fa déposé woon jël sa un million dem vingt cinq mille moomu la kon bu ko jël am na ci nag ñoo xam ne dañu ne dañ koy jël jël sarax ko ay miskin ñu ne noonu ñoom dañuy jàpp ne ba ko ko bëree yëpp xëy na mën na indi ay jafe-jafe mën na dugg ci yeneen bunt ala kulli xaal ixtilaaf la ci borom xam-xam yi ci masala boobu ñu ngi noonu ah ku nekk la la ca bëri nga xam kon loolu la ñu wax ci wàllu googu mais bu doon lim la dénk moom dafa nekk xaalis bi léegi nag waa ji la dénk dafa nekk loo xam ne nii du xaalis dalaa ñu woon dénk la façon masala dénk la chaîne or dénk la oto dénk la ak pàkk yëpp nga bëgg ko jaay ndax am nga droit di lekk bénéfice bi tuuti loolu déedéet amoo ci droit heure boo jaayee loolu muy matériel borom ka moom mbir ma ku mel noonu moom la ñuy wax mu jël njëgu lan ko jaayee su dee jaay nga ko loo xam ne méngoowu la la nga xam ne mooy bërëlëm ci bis ba nga koy ba nga xam ne ba nga ko jaayee dañ naan la da ngay fay bërël bu toll ni la nga xamante ni moom la mbir bu waroon a jaar loolee kon muy différence entre jëfandikoo xaalis li ci buñ la dégg ak jëfandikoo matériel boo xam ne dañu ko dégg loolu nekk na la nga xam ne mooy différence bu rëy bu nekk ci loolu kon bokk ni benn tënk la boo amee ci wàllu ndénkaan yi wala ñoo dem ci beneen bunt bi ci topp mën na am mbokk yi am laaj yi ci loolu laaj incha allah waaw ñu amalee benn.
léegi abal nañu benn mbir quoi.
mais li nga xam ne benn xaalis liquide wala.
parce que loolu xaalis boobu xaalis boobu xaalis bi nga xamante ne bii xaalis bi quoi abal na ko quoi abal.
ala kulli xaal def nañu ko ah ah def nañu ko keneen quoi.
ala kulli xaal waa ji dañ ko dénk bi nga ñëwee di ko jël mu ne dawloo loolu yi moom ko defee def na loo xam ne waru koo def def na bakkaar bu rëy ñu ngi noonu loolu moo ko dee nii lan la lan ko yor bi ñu ko yor kon bu rëy def na ko bu dee nii it moo dem dugal ko foo xam ne ni waru ko woon a dugal ba tey tooñ na looloo tax mu ne sib nañu nit ñi ñu dénk la xaalis nga jóg naan dañ cee commerce ni ma la ko waxee sax mooy waa ji ñëw taxaw nga di ko lay loolu moom mooy lépp su defee moom dénkaane boobu moom bor bi nga leb rek la waa ji da koy topp ba baa mu fay ko la nga xam ni moom la ko yoral wala delloo ko la nga xam moom la ko dégg ko amma bu dee yow waa ji da la abal dara ndax loo ne am nga droit yow di la able waat déedéet bokk bu dee ne la nga xamante ni alal liquide ca mu bu leer na ne ni yow kat waa ji bu ñëwee da nga ko dellu masalan waa ji ñëw na abal na wala dénk na la li nga xam ne nii moom mooy xaalis liquide kañ nga ko war a fay fay di moom kii ñëw moom àbb la nga jënd dana fay la may wóor na li ne balaa ngaa fay ngay kii fay la loolu yëpp dara ñu am naa bu dee matériel matériel bi la abal amoo droit abal ko keneen lu dul ci digalu bala faaw loolu mi ngi noonu matériel bi la abal wala matériel bi nga dig loolee moom doo am droit di ko jox keneen lu dul ci digalu ga nga xam ne moo la ko abal wala mu dégg mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam
Thank you. moom comme ni mu nit nit nit ñi nga fekk loolu nga koy jox ñu def mu xaar trois mois yi moom moom moom la wala trois mois yi def loolu moom koy def.
waa ji def ma dénk xaalis na ma danaa ko dencal ma ko fii six mois laa koy jël si comme demee ba def trois mois mu daal di ñëw taxaw ne la jox ma xaalis bi su boobaa moom nekkul force nga delloo ko xaalis bi ci si mooy nekkul loo xam ne nii lu jot la donte ne nii la gënoon a doon luy maandu te mooy six mois lu mu mën a doon yow doo ko jël di ko jëfe lu dul nag yow ci sa xalaat nee nga waa ji nee na ko soo bëggee soo ci mënee jëfandikoo ko jëfandikoo ci man fii six mois laa ko soxla su boobaa heure bu waa ji ñëwee taxaw la ko jàppandi rek lañ koy jox lu nekk charte nga fay ko avant six mois ndax yonent bi alayhi salaam dana woon al muslimuuna ala shurutihim li nit ñi dee ca charte yéen charte ci loolee dañ leen di attee mi ngi noonu xam nañ ni même boole moom ci banque yi am nañ tuddee compte bloqué bi dafa noonu waaye ala kulli xaal daal jullit ñi lañ charte te la ñu leen di attee mi ngi noonu moom allahu subhanahu wa taala alam bismillah ñu ne ñuy waaw waaw waaw sa ñaan bi sa ñaan bi ñu ne di def ci vingt mille francs vingt mille francs ala kulli xaal loolu moom la ñuy wax rek ay problème natt mooy waa ji dañuy ñëw ñuy natt ci moom natt boobu moom mooy wër bi dajale natt yi moom mooy denc moom mooy ah koy séddale après moom mi yor natt bi nag ñu ne ko daan daañ la jox nangam ci loo xam ne ni dañ la koy fay ngir coono ba mu cay def lu mel noonu bokkul ak ak leble bokk la ay la nga xam ne nii mooy ay dénkaay loolu mi ngi mel ne rek waa ji nga xam ne dafa am service am ku mu embauché ca kees ga koo koy denc koo koy nangam su ko defee bu dee ne daal ñoom ñoo ci dëppoo ci ne kat moom bu dee ne dañoo dem bay teg bu nekk dana ko jox nangam ngir coono ñu doon am di dajale natt yi lu mel noonu moom dañuy gis ne islam ci wax dara wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah loo xam ne dafa nekk Angleterre ak thème bi dañuy gis mbokk yi nekk ci réew indi ñu créé ay alal dañuy nekk ci réew yónni seen màkk wala seen jabar wala seen bopp xaalis nekk ba ñu ne papa ji wala wala wala jabar ji wala papa ji jël xaalis def ko tere léegi ñu def suñu jamono yi ñu jël ay alal les présences ñu gérer ñu gérer seen xaalis ñu fekk seen papa ji ñu jaay seen seen jabar ji loolu nag mu nekk tey moo xam ne dina nekk mu àll bi ci islam di ko nekk par rapport à affaire bi da ngeen xaw ni seen ci dénkaan bi ñu joxe loolu.
c'est-à-dire que dénkaane mooy lu tax mënuñu ko jox agence wala lu tax ñu ko jox agence la.
lu tax xam nga am leen ay agence.
waaw da ko war a noonu bokk nekk ci réew. les immigrés yi. xaalis bu ñëw leen rek ñu leen seen bopp yi seen papa la si ngeen mën a koy dencal.
waaw li nga mën a def ñooñu si ngeen toujours ñooñu fekk xaalis yi jëfandikoo ko.
waaw dañu ko mën a dëggee mu ñëw bu ñu amul benn. léegi ci biir nag sëriñ ko commencé agence am léegi ñoom suñu réew ñu seen papa seen parents yi leen avancé ñu joxaat bopp bu koy gérer loolu nag waaw loolu laa doon tax waaw na ko di xaar dénkaane moom kuy dénk da ngay dégg ku wóor képp kuy dénk da ngay dégg ku wóor dafa naa commerçant yi nekk Sandaga suñu jëm mu jël ak deux cent millions bi cinq cent millions di ko jox seen yaay wala seen i bàjjen mu denc ñun ñëpp ca banque yi dañ koy dénk wala kuñ wóor ka nga xamee ni nii moom la ñuy dénk lépp loo xam ne nii attanoo ko di responsabilité ku la ko dénk da ngaa war a bañ ñu ngi noonu ku teeg la Bilal Thiam ba nett li dafa woon seen dëkk ca wàll ba góor ga bañ ne ko yow daal dañu war a jox la trésorerie yi seko bi mu ne eh jox leen ko lu mu yàgg ba yaa ci dañ waaye mbokk déedéet lépp loo xam ne ni attan na ko tey jii am na koo xam ni amul kàttan di denc ay 10 millions wala 20 millions ci kàttan kooku bu doon ñëw jox lu demee noonu da ngaa war a beneen pexe mu doon ndey nga bàyyi nga fu mu mën a doon ndax alal joo xam ne moom moo ko moom moo ko bu dee ne it doom ji dem na ba gis ni alal jii nga jox ko saa bàyyi wala jox ko saa ndey wóorul mu wut feneen fu mu ko denc agence la am lu mu mën a doon luñ ko mën a tuddee su boobaa da ngay gis it ni loolee kenn du ko topp ci loolu allahu subhanahu wa taala alam naam
waaw man ma lay laaj benn question comme mbir yoo xamante ni dañuy nekk ci village yi da ngay am sa benn dëkkandoo boo xam ne moom su nawet bi jotee amul dara amul dara léegi après ñaata ko day jigéen moom mu yor loolu di ji jigéen parce que léegi parce que am doom ba waxtaan moom ne aar naa la ko pendant deux ans deux ans bi jotee bu génnee ba fekk am doom léegi est ce que doom boobu am naa ci droit bu jëlee
waa ji nga xam ne dafa abale woon fasam fas ba am doom doom bi doomam la moom moom moom fasam moo ko abale donc na cay jur doo doom bi moom doomam lay doom loolee mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal am na yenn charte yoo xam ne nii day bëri ci àll bi mooy dama lay jox fas bi wala ma jox la far bi léegi bu juree ren nga jël bu jurul ren nga jël bu bu jëlee jël ma jël loolu bari na ci ànd bi waaye loolu dañuy gis ni borom xam-xam yi la ko ci ñoom dañ koo bari te bokk na ca mazhab Maalik ndax loolu dañ naan yaa ngi liggéey loo nit ñi ci kumpa moom mi ngi lay sàmmal say xar sàmmal say nag ñu nar koo fay loo xam ne xamagum loolu moo tax ba lu mel noonu dañ koy bay am maa waa ji moom nga xam ne daf koo abal rek fas woo wala nag woo wala nangam maa def na ko ko abal rek la ci la ciy juddu moom yow yaa ko moom wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kon ñu jël benn ci topp mu ne wa man wajada luqta wa man wajada luqtata fal yuarbiqha sana koo xamee ni nii day am na jot na lu ñuy for naka xam le atum yàlla bi mawdiin yardu taarifa biha ci place boo xam ne nii dees na yaakaar ni dees na fa xami la nga xamee ni nii mooy lan for fa in tammat sana suñ demee ba at ma mag walam yati laha ahadun ci njëkkalu ko kenn na ko ko laaj fa in shraa habasaha su ko neexee na ko garde jëfandikoo ko wa in shaa tasaddaqa biha su ko neexee mu saaxe ko wa daminaha li rabbiha waaye nag mu gaaraat ci ko ñeel borom in jaa bu ñëwee mu fay wa in intafa biha daminaha su dee it ba mu ko fori la commencé di ko jëfandikoo da koy garanti bis bu borom ñëwee lépp lu mu ca yàq dana ko ko fay wa in halakat qabla sana su dee nag dafa yàqu avant at ma di jeex aw ba'daha wala lenn la ci yàqu bi gayri taxriq ci lu àndul ak jéggi dayoo lam yatmanha su boobaa amul benn garanti bu mu cay garanti wa ida arafa taalibuha al ifaasa wal witaa axasaha waa li ñëwoon nag di sàkku si ni moom moom moom alal jëlee su waxee mbuus moom nekkoon nu mu mel ak buum nga ca takke nu mu mel su boobaa dana ko jël wala yaxudu rajulun daalatul ibil doonte ne góor du jël la nga xam ne dafa réer ci gileem yi min asaxara ci digg àll ba wala huwa axdu shaatin am na droit nag jël la nga xamee ne nii moom mooy gàtt ya muy xar ya bay yëpp wa akluha am na droit lekk ko in kaanat bi fayfaahu laa imaarata fiiha bu nekkee ca naan dafay fay nga am na ba nga xam ni benn kenn dëkkiwu fa mi ngi noonu ba ko kon kii day wax ci wàllu for waa ji daa ñëw for benn mbuus for benn keesu xaalis for benn enveloppe ku mel noonu dafa war a dem ci place yi ñuy yëglee yëgle ko fa loolee doon démb marché ya nay door a jàkka ya ki deme noonu donte ne tey yàlla may nañu lu mel ne rajo yi nga xam ne ah man kat for naa xaalis ci place sangam yi ngi noonu léegi nag yow loolu ngay wax for naa daal xaalis bu wér la xaalis ci place sangam for naa fa xaalis ba defee ñu yëgle ko fañ ko war a yëg lu tollu diiru at diiru at boobee gis nañu ni mooy jamono yi ñuy waxee moom mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu information nii woon nun daan tasaaroo donte ne lu bëri ci borom xam-xam ne dañ koo gisee temps bu logique bu jaar te loolu day dépendre ci lu nekk valeur ca bu doon suñu jamono tey jii bu dee ne yow yëg la ko ko pendant un mois ci rajo yeeg journaux yeeg bi dema noonu daañu ko presque day doon loo xam ne nii lu doy la amma bu dee di rocc sunna mooy na nga ko denc la nga xam ne mooy un an su dee yow denc nga la nga ko waroon pendant un an kenn ñëwul laajte ko yooyu ngi bàyyi salaam dafa ne woon fa chahnu kabira sa mbir mi ngi nekk ci loolu soo dee yow aajo woo ma mën koo jënd rek maadaama kenn remanti wu ko alal la du la yàlla jox mën nga koo jënd lekk ko loolu jënd la gënoon mooy nga saraxe ko ñu ngi noonu waaye lekk nga koy lekk ak saraxe bi yëpp gis bu waa di ñëwee rek dañ koy fekk ñu ngi noonu boo ko lekkee boo ko saraxe yëpp buñ ne ko waa di ñëwee ñu xam ne kii moomam alal ji dañ koy fay bu dee matériel la boo xam ne yow dañ ko jël di ko jëfandikoo yi loo ca yàqu dañ koy fay ñu noonu am maa bu dee ni yow jéggi woo dayoo ci mbir ma mbir ma daal avant at bi di jeex mu yàqu ñu nga noonu avant at bi di jeex nekk na lu yàqu te doon loolu ay lekk la woon wala yu demee noonu su boobaa waa ji kenn du ko toppee ci loolu ci dara bokk na ci ci heure boo xamee ni nii waa ji dafa ñëw fokk bala ñëw di yeyoo loolu day xam li fan la xaalis bi nekkoon xaalis bi ni ñu ngi nekkoon ci mbuus tel lañ ko takkee mooy nangam firiwul sax ne dafa war a xam exactement la ñu ne ndax ñu ci bëri du ni dañu xam exactement la nekk ci seen coffre yi yor wala seen xaalis seen yor amma boo xam ne mbuus ba nii la mel lañ ko takkee nii la mel su boobaa dañ koy lëkkal ci loolu lii lépp nag mbokk buñ koy wax mooy ci xaalis bu am valeur waaye bu dee xaalis yi nga xamee ne nii amul valeur loolu du taxu ñuy wax génn gi fi ñu dox daje teg sa nit yee cinq mille wala yee dix mille ci mbedd loolu it doo nekk di wër pendant ñu koy waxee un an naan bi kër gi dix mille bu dee ne am nañu jege foofu rek man nga leen wax ni boo ku ngeen gis kat muy taxu ay tànk xam nañ ñëpp xam naa ki daal loolu du ko di di di ab diir boo xam ne quinze jours peut être kenn revendiqué wu ko mënees na koo def bu dee ne yéen ñi ñàkk solo yu ay cent franc ki cinq cent franc ki demoon loolu moom presque jarul laaj ndax nit ki du ko réer la ba pare buur bi ko waat di ko wër a su ko defee kon ni lépp liñ ciy wax mooy loo xamee ne nii waa di ko réer la ma ngay am coono ngir wëri ko ngir man koo man koo jëlaat ci moomeelam moo indi beneen masala mooy waa ji dafa nekk ci àll di dox ba ci digg àll bi mu gis benn giléem yonent bi aleyhi salaatu wasalaam baka ibnu Juhayni laaj bi ko waaw boo dox ba ci digg àll fekk fa giléem nag mu ne ko ah giléem del mi ngi naan mi ngi ay tànkam te giléem yàlla may na ko mën na dox un mois du naan yéen tamit mën na dox lu yàgg mën na nekk ci garab yi ba ba boromam dëgg a jëf mu ne ko wax bu dee ne nag da ngaa dox ci digg àll gis nga am xar wala bëy ah ñaar rek da mën a am nga jël ko wala borom gis ko wala til lekk kon nag boo jàppee ni nii borom duñ ko gisati su boobaa yow am nga droit jël ko waaye day nekk ci àll yoo xam ni kenn dëkkaloo ko mu nga amit yaqin ci ne bëy bii day wala xar bii day mënatu la fexe ba nit bi waa réer na te boo fanaanee ci àll bi till yi rek ko la ko kii su boobaa yow jël gën koy jël loolu li ngay gis ni islam du wax ci loolu dara loolu moo aju ci la nga xamee ne nii mooy wàllu for dara mi ngi noonu wàllu for dara mi ngi noonu ala kulli xaal su doon tene it am na ci kuy laaj ci for bi waaw bismillah waaw ci for bi ñu ko amoon na xale ci kër ci ay ci for ay benn xale bu jigéen boo xam ne mi ngi toll di jàpp kay ci ñu ko doon ci doon dañ koy jàpp dara mën a fàttali ni ci ñu jël daal yàlla ci ak ñu ne ak kay dem ba sax di yàlla mo ay kay ci ñu daal su ma xool ndax maa sama xaalis bi xam nga ni moom la ñu ma xool ndax day génne xaalis ba pare yaa ngi tey ah indi laay sama xaalis la ko fekk loolu
waaw boobu moom sàcc la rek waaw ku nekk day wax ne góor buy romb benn xale bu jigéen jàpp ko ak cinq mille na ko papa ndax cinq mille lu ko dewoon ci yow mu xool ne ah ah kay maa ko moom fekk moom moo ko kooku daa sàcc moom am na moom ci commentaire naa bismillah waaw waaw li wax ni bu fekkee ni da ngaa for nga jël ko wala nga sànqee ko wala wala koo xam ne da nga koy yoreel xaalis toujours mel ni boppam nga toujours balaa bu fekkee ne wóor na la fii nga yor mu tuuti nan ko sax sax loolu la yéen ki koy wax wóor na bi ki ki ko amee mu tuuti
bu dee nii ki nga xamee ne nii ki nga xamee ne nii dafa da nga koo amee xaalis te nga wër nga wër gisoo ko te moom nekkul ab julit loolu du ne moom ngay sarxeel xaalis bi waaye jëmmi xaalis bi ci boppam ngay sar ko defee loolu mu génn ci sa moomeel nga jox ko miskin te mooy bépp alal boo xam ne yor nga ko te moomoo ko comme li baax rek waaw comme riba bi it maa nga delloo ko borom wala nga jox ko njabootu yàlla te mooy miskin yi nga xam ne nii ñoom la yàlla def ñu néew doole bépp alal boo xam ne xamoo kuy borom nga jottali leen ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam dangaa wax nga sànqee ko waaye nga sànqee ko déedéet bu doon jullit la dañ naan sarxeel ko borom comme yow wër nga ba sonn xamoo ko xamoo ay ndonoom soo xamoon ay ndonoom ndone yi la koy wër nga xamoo ko xamoo ay ndonoom ñu ne ah yàlla sa jàmm diw de moom mu amaloon lii sarxeel naa ko ko suñ demee yomal qiyaama dana la sant gërëm la ndax boobu la muy fay boobu moo gën fay ko woon fii mi ngi noonu bismillah waaw waaw dañ ci moom ñu ngi ciy dem benn bànq nekk ba ci ñu ngi lu ma nekk ñu toog benn taabu taabu boobu ci suuf ba fekk xaalis xaalis amul doole waaye yow mu dem léegi mu dem xaalis boobu amuloo ci boole te léegi bi ko xoolee day am yow fi nga dem dafa sori mais ki nga xam ne mooy jaaykat bi nekkul ko moom jël ko ne ko ah xaalis bi de man fi laa toog nekk nii man ko ci suuf maanaam kenn suñu client moom moom moo dale xaalis bi léegi man dama koy jox bu ñëwee ñu jëm ko ñoom ñu ñëw loolu boo xamante ne xam ne islam tamit fondation bi am parce que loolu moom la fi ñu
ala kulli xaal li nga koy boole toll sa jaan wàcc la fi may ndékkee gis naa xaalis bu ko wat ma yëkkati ko jox ko borom place yi ko idée yi doon ndékkee kenn ko ci waddal su boobaa yow sa jaan wàcc la amma bu doon te ne amoo wóolu bi ci wàcc la gënoon mooy nga denc xaalis na ko nag ñi fi doon ndékkee day am na ñu fi waddal xaalis képp ku ñëw fi waddal xaalis sama numéro ngi nii wala maa ngi dégg fii bu dee amoo wóolu bi ci moom waaye daal bu dee ni moom amul gisoon ñàkk wóor boo xam ci moom la la noppal moom mooy yëkkati ko rek jox ko su ko defee ngeen am ñu def ngeen ngeen déggal ko ngeen baal man sama inspecteur sax ba xam naa ne dem na ay li ñuy décidé ne caami bu daan dugg ci biir nu ñu ko waxee garab bi léegi bi muy xoolee rek am benn paquet bi yëpp watt moo daal di yëkkati chauffeur bi chauffeur bi bi ko gisee ci kanam defal la ko nii na ko noppali nii ñu séddoo waaw dina ko d'accord ah bi ñuy wàccee mu séddoo jox bu pare chauffeur bi laa ko def eh xaalis laa ko mun a ko ngir moom moo ko dañuy def police léegi biñ demee police ñu ne chauffeur bi dugal fii yaa ngi ne ala ku di xaal ci gàttal daal moo di nit ki boo ko wóoloo boo ko wóoluwul ko jox alal yoo xam ne alal yi demee noonu am naa nag boo amul ci moom benn soupçon ah tey boo ko mos a gis place am nangam ba ko pare la lay na pare mooy nga jox ko ko yow génn ca bu ko lekkee moom moo xam ñu ngi noonu waaye yow moom yàlla mu jënd ci loolu allahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal bokk ñu dem bind bi ci topp mu ni wa man istahdaka ardan ku yàq matérielu jaamu fa alayhi qiimatuhu dana joxe lu toll noonu ci xayma wa kullu ma yuusan lépp lu ñuy peesi aw yuukan aw aw yuukaan wala di ko natt fa alayhi misluhu dana joxe lu mel noonu mbokk si day wax ci kaa yàq alali jàmbur islam dafa prévoir yàq alali jàmbur yaaka tey teeru ko la nekk ñu mel ni ki ay bakkan yaaka tey teeru ko da ngay joxe la nga xam ne muy jiir léegi nag boo tey moom nañ danga rey la sax mais même boo ko tayut suñ borom mu ne joxe jiir bu dee dañ daa amoo jiir boo joxe it dañ daa baara kaza wa kaza suñ borom mu ne kon na nga war ñaari weer yu tegaloo bu dee mooy da ngay wareel jaam joxe jiir soo amul jaam nga war ñaari weer yu tegaloo joxe jiir xanaa lu dul ñu baal kon képp ko yàq alalam yaa ka tey te yow ko am na droit de la fay sama alal li nga noonu am na droit de la fay ma ci kooku yi islam da ko wax ne loolu dara xanaa lu mu baal bu doon tene ne lu ñuy peesa la da ngaa ñëw ak sa oto jaar ci tamaate jàmbur jaar ci xaali jàmbur wala ci ceebu jàmbur alakuli xaal dañ naan la da nga la jënd lu mel noonu fay waa ci bu doon tene mbir la yoo xam ne ni oto la portable la ak lu mu mën a doon su boobaa moom masalan lu mel ne ak jiw dañ ñu xool ñaata la war a jar ñu fay loolu noonu noonu yaakaar na yem tayoo donc dina am jullit di ko yàqal ci tayu ko moom dana ko baax waaye bu la baax nit islam ko toppee ci dara lu waral lii mooy dañoo bëgg ñibbi plus donc ndax boo ko xam ngeen ni quatre-vingt-dix pour cent accident yi am la ko waral mooy ñàkk prudence mooy ñàkk jël matuwaay dëgg-dëgg yéen soo ko rek di tërërër tërërër alors loolu mën na jur ay ay ay mbir yu bëri islam nag pour bëgg nit ñi yàq ci dellu gannaaw moo tax dañ naan même boo tey dañ lay tegul wax yéen nga am prudence ci la nga xam ne yéen koy mi ngi noonu amma bu dee ne bind bi ci daf day wax wal xaasib daaminu lima xasaba ka nga xam ne dafa jël alali jàmbur ci force jël toolam jàmbur jël alali jàmbur ku mel noonu nii dañuy gis ni moom mooy garantie lépp lu ca yàqu fa in radda zalika bi xaalihi bu dee duñ jëlee masalan portable bi delloo na ko ci saa si fala shay'a alayhi ba mel noonu dara bu ko ca war wa in taxayyara fi yadihi waaye bu soppeekoo ci loxo fa rabbuhu muxayyarun bayna axdihi ka moom mbir ma dañuy tànnaloo ci mu jëlaat ko bi naqsihi ak wàññeeku ga ca wàññeeku aw tadminihi l qiima walla boobu mu daal di jël garanti xayma bu mu waroon a ja- ja- jar ñu jox ko loolee wala kaana naqsu bi taaddiya bu dee ne nag wàññeeku ko daa nekk ci jéggi dayoo bu waa ji jéggi dayoo ci la mu jële woon ca waa ja xuyira ay daan des na ko tànnloo fii aqdihi ci mu jël la nga xam ne moom la moom wa aqdi ma naqasahu ak jëlaale la nga xam ne waa ji ko ca wàññi waxal uxtilatu fi dalik doonte ne nii fóote ni ci loolu mbokk ci day wax ay kaa la nga xam ne ci jël alali jàmbur te fekk ne da koo jël ci doole loolee bu ñu demee ci attekat bi dañu koy force mu delloo delloo googee bu dee ne dara sukk ca na nga ko joxe woon na ko delloo amul benn problème donte ne nag lii atte moom am na droit teg ko ay dara waaye yow moom lañ jëloon ci yow jox nañ la ko amul problème mu mel ne rek ñi jëloon toolu jàmbur wala dagg ci toolu jàmbur ñu delloo ko ko amul problème am maa bu dee ni yow la nga xam ne da koo jël bi mu demee yàqu na ci ak yàqu am na ci loxo waa ji bu ko neexee ah jëlaat mbir mi wala mu jël valeur ñu noonu lu dul ne yàq nga ka nga xam ne moo ko këf jël ko moo ko tey su boobaa moom dañ koy delloo mbir ma xool à peu près naka lay toll masalan lii dëkk ko bëggoon a delloo na meloon dañ ci prétend ñu jël mbir mi jël waa ji nga xam ne moo ko jëloon jël ci moom lu toll noonu yi delloo ko waaj loolu ala kulli xaal muy nekk ci forme yi nga xam ne jullit war na koo moytu te muy jël alali jàmbur ci tool loolu bokkul ak sàcc sàcc mooy nga jël alali jàmbur ci loo xam ne yiiwu ko kenn xamul ko ko jël maa bu dee ne xasdu mooy ñi agresseur yi di def wala boo demee ci ànd bi xëy suba rek jël dig bi fi la yem nga buus dugg ci toolu jàmbur di nekk sax ci loolu yonent bi alei salaam ne ne ki jël ci toolu jàmbur wala këru jàmbur teeree jàmbur lu toll ne shiba mooy yaa doy doxal yi yàlla dana ko bëtt ba juróom-ñaari suuf yoo mën a xiyaama moom lañ lay sëpp mu ngay ñëwaale bis pénc kon ki dagg ay mètre nag waaye ki jël tool bi mag tool bi loolu kon kenn xamul musu boobu nu mu toll bokk bind bi ñuy mujjee jël mooy wala xalla wala xallatu wala bi ngi noonu mu ne wala xallatu li xaasib la nga xam ne mooy bénéfice bay juddoo ca lan këf kaka këf du ko moom wala raddu ma akala min xallatin aw intafa lépp loo xam ne nii lekkoon na ko ci la mu jëfoon wala mu jëfandikoo ko dana delloon mel noonu wa alayhi alxaqu in watia heure bu këfoon jaambub jaambub ba pare wëlbatiku sëyëg moom dees na teg ci moom loi l'islam wa waladuhu raqiqun li rabbil li rabbil amma te doom bu dee juddoo na ca ka moom jàmbu jigéen ba mooy moom jàmm boobee mooy moom doom jooju nekk jaama wala yaqiqu lil xaasid maal ribhuhu xatta yarudda rasal maal ala rabbihi ki nga xam ne daal tëf alal lam ca commerce ba am ca bénéfice bénéfice boobee du ko dagal lu dul dafa delloo alal ci ka nga xam ne moom moom alalam wala tasaddaqa bi rizqi doon te ne bu saraxawee bénéfice ba kaana ahabbu ila baadi ashaabi naari loolu nii moom la ñu gënale ci ñenn ci borom xam-xam yu maalik yi wa fi baabil aqdiya shay'un min haada al maana mu ne nag buñ demee ci bunt bay waa jàngale affaire yi atti dana la indi léegi ci lu lu mel nii alal bi xaal bokk fii lu fii tënk mooy waa ji dafa jël la nga xam ne mooy alali jaamu masalan jël na xarum jaamu loolu yi xar ma dem ko jur ndax tax na moom mu moom jur googu la nga xam ne nii dañ naan déedéet waaye li nga xam ne moom moom loolu yi moom lañ koy delloo sàcc na jaamu jaamu ak ca doom loolu ñun jàmm ba borom jàmm baa ko moom mu des nag moom lan la sàcc xaalis nit yi maa ngi jublu ci sàcc rek mooy jënd ko ci doole waaye xaalis bokkul ak sàcc xaalis mooy nga jël alal ji ki xam ne na yaa ko jox ñu ngi noonu léegi moom mu def commerce bi bu ca commerce yi dañ ñi bénéfice am boobu du ko dagan lu dul dem na delloo waaja alal dem ko jële woon loolu yi lay mën a doog a nekk benn bés bu ci juddoo doonte ne ne mu ne lenn ci ma maay gën ni bénéfice sax wuru ko ne maadaama ñu ngi ci sonal woon ci alal gi jaram même bu fayee waaja la ca juddoo ci bénéfice wuru ko ne ala ku ne xaal mbokk lii kon ak tënk la ci li doon tëj suñu bunt bi nga xam ne mooy fanweeru bunt bi ak juróom benn ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla sàmmal ñu suñu diine sàmmal ñu suñu ngor yàlla bu ñu yóbbaale tax ko kenn ci ay jaamam yawmal qiyaama wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله نعم وعليكم السلام
mbokk yi nag mu ne mooy bërëb mu ne lan la ñu tàmbal jëm ci service chrétien jëm ci waaraate di ko waral di waaraate lan la ñu tàmbal suñu waraate maanaam chrétien yi chrétien yi dañu gis suñu waaraate bi dañu gis waaw ndax l'islam permettre na jullit mu mën a fekkee loolu loolu waa li nga def xam ci ñun
ndax ab jullit am na droit dem di fekke waraate chrétien yi déedéet jullit amul droit ci loolu ki nga xam ne mooy Umar ibn Xattaab ñëw na bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi benn page tawra di ko ay yàlla yónni xoolal xikma bi nekk ci tawra yonent bi alayhi salaatu wa salaam mer boo xonq tur na ko Omar yonent yàlla Moussa ba nekki woon li lépp dana ko woon gannaaw ñëw topp si ma kon ñun dañoo gëm ni diiney nasaraan ñu borom yàlla xolli na ko ñoo ñii loolu ñuy waaraate ñun ñoo war a def pour waar leen comme ni ñu ko yàlla sante qul ya ahlal kitab taalaw ila kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum damaa leen di dugg seeni waaraate loole ak ñu di def loolu allahu subhanahu wa taala alam naam
ndax ne exemple yi bu fekkee daa yàq àll jàmm naam da ngay doog a tey mais bu fekkee nag ñu tàggante ci moom ñu yóbbu yàq mais kii yàqal moo ko moo moo ko koo xam ne daal jaajëf par exemple rek mën nga dugal léegi seen waa jël ay weeram tëj ci fees bi wala ngay door oto jël waa jaay ci sànq bi wala yàq la
suñuy wax ci wàllu yi nañu xam ne wàllu atte la lépp loo xam ni dégg nga ko ci droit loolu dañuy wax ci cadre général waaye yii ñuy wax yépp dafay aju ci cas atte su ko defee heure boo xamee ni nii ak yàq am na dañuy xool mbir bi yàqu na mais kan mooy sabab bi loolu moom mooy problème bi ñu muy fàttali rek yonente bi alayhi salaam dana woon amaar day benn mbooloo ko beew ñoo koy rey yàlla dogal dund nañu ay lu jege presque trente ans fitna am diggante Muawiya ak Ali ibn Abi Talib Ammaar jóg ànd ak Ali bi mu demee ñi àndoon ak Muawiya rey ko ñii ne voilà yéen it boo xool ne ni mbooloo bu beew ñoo koy rey ñeen ñeneen ñi ne déedéet yéen ñi fekk Ammaar fekk màgget na ko yéen itam màgget bi ñu jóge bi yéen a ko rey ci gàttal ala kulli xaal bépp mbir boo xam ni dafa laaj génne alal dafa laaj tuur deret loolee kenn du ko wax nii rek fokk day ànd ak atte ba attekat bi atte ba xam lii naka la demee fi nga noonu allahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa waaw bismillah waaw mu ni waaw waaw waaw waaw waaw waaw dañ ko dénkoon xaalis booloo ko dénkoon xaalis ñu tas ko jëm ci jamono am ñi ñaan ne ko duñ ko séddoo mu ne déedéet fokk ñëpp dañuy ñëw ala kulli xaal loolu moo wax ne mu ne maanaam ñëpp ñëw mais bu dee ñëpp mënuñu ñëw nag loolu des fois muy am man nag ñuy dugg dañu ñuy dee ñuy kasa ñuy kasa maadaama dañ koo wóolu woon jéeg ko ko war naa xool ku nekk lan la ca yeyoo mu jox ko ñoo ñuy ñëw ne dañu leen a jox seen xaalis ñu calculer lañ yeyoo ca xaalis bu ñu jox leen ko ñi ca des ci gisu leen mu daal di jël seen wàll fexe ba jox leen ko wala jox ko ñoo xamee ni seen i ndono lañ waaye du rek mais ñooñu ñu dañoo rek lay séddal mbir bu mu jeex mbooloo daal heure bu ñu bokkee wóolu kenn suñu boroom subhanahu wa taala mu ni na ngeen delloo woo wóolu jege ca ñeneen wóolu wóor ñu ngi noonu loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mbokk jàpp na xanaa mu mujj ca mbokk bi rek ci mbokk bi rek bismillah waaw waaw dafa am benn maa ngi maa ngi jàpp maa ngi maa ngi bokk ci baaraam yi dafa am benn waay bu ñu ko waxee ñu ngi ko waxee mu ne rawatina ci jàpp bi ko waxee mais lépp mu ko woon laaj ba xam ñu jëm na ci tali ndax man lépp loo xam ne ñu koy teye damay laaj pour keneen da leen dama gisee keneen di ko def moo ko teree ma mën ko def tamit donc maa ngi ko laaj tamit ci biir wala ku xaal li nga xam ne dafa nekk ci jàkka ji pour nekk di topp ay baaraam ndax nit ki bu jógee ñëw jëm ci jàkka ji dañ koy considéré ne dafay nekk ci julli loolu it moo tax nekk ci jàkka ji di topp say baaraam loolu it ngay gis ni nekkul loo xam ne nii lu ñu gërëm la am maanaam bu dee ci biir julli tere nga day gën a tax ñu nga noonu waaye yëpp li toog di xaar julli kese rek sax dañ ko cay tere loolu dina tere nga nekkul lu tar waaye nag gën na tar nag bi nga kàbbare buy julli moom nga nekk di foq da nga xamante ni moom mooy say baaraam di ko wóobale di ko foq foq ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw loolu loolu moom moom nañu xam ni islam moo ko tere wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain